ka tëdd oh. xam ngeen Imam Busiri ci buntu bu njëkk bi wan nañu mbëggeelam gu rëy gi kaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa te tudd ko ba léegi barab ya rek lay ñaareelu bunt bi nag mi ngi ñoo jàngal danger bi ñoo tuddee bakkan ak ay bëgg-bëggam danger seytaane ak ni muy collaborer ak bakkan mu ne fa inna amaarati bissuui ma taawadat min jahliha bi nadiri chebi walharimi wala aaddat min alficli aljamili qira dayfin alamma bi rasi gayr muxtachimi law kuntu aclamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bilkatami nee na réerug bakkan mi ngi yem ci am ñaari gan yu toll ni màggat ak béjjaaw te nanguwul leen ganale gan la yu nga xam ne suñu xasee wàcc sa kër du ñu ñibbi mukk tànk yóbbaale wuñ sa ruux lenn rek nga leen mën a teralee mooy jëf ju baax mbaa ñoom ñu teralee seen bopp sa ruux ndax ku dee mag dee ku mag de wala sax day wax ne mag du caaxaan borom bi jaaw du fo mu ne su fekkee ne ñàkk naa kersa ba tereleewu ma leen jëf ju baax waroon naa sax ba cub ko ni yenn mag ñi di def tent seen kawar ngir ñu foog ne xale lañ nee na moo tane sax nee na moo tane mu ne man lii bi raddi jimaahin min riwaayatiha kama yuraddu jimaahul xayli bil mu ne ban ban docteur laay am bu ma mën a fajal bakkan booba xel mi yëpp a bi ndax moom rek ko mën faj waaw mu ne bakkan xaw ma kan ci yéen moo mosta gis euh, fas wu màmm mu ne waaye man gis naa fas wu màmm na fas wu màmm nag na mu dangereux bakkan bu màmm moo ko gën a dangereux fala tarum bil maasi kasra shahwatiha inna taama yuqawi shahwata nahim bu la bakkan mën mukk nga ne naa ko jox li mu bëgg rek ndax ma noppalu ndax nee na ki tëfal saalum saalum may wax tëfal mm-hmm. ah moom ngeen di wax ku fuqale mm-hmm. ku fuqale doo fajee fuqale bi jox ko ñam ndax loolu lay wut mm-hmm. ndax loolu lay wut mu ne woon nafsu ka tifl in tuhmilu shaba ala xubbi radaa'i wa in taftimhu yanfatimi fatimi na bakkan a xale yam xale mën nga ko feral ñaari fan mu jooy ñetti fan après mu fàtte waaye soo ragalee jooyam yooyu mbaa nga yërëm ko ci mm. dana dem ba toll ni baayam football yi ba pare ñëw ne la yaay jox ma wen ma nam nee na bakkan noonu la mel nooy def nag mu ne fasrif hawaha wa xaadir an tuwalliyahu inna al hawa ma tuwalli yusmi aw yasmi wa raaciha wa hiya fi l acmali saaimatun wa in hiya staxlat il mara fala tusimi kam xasanat ladata lil mari qatilatan min xaytu lam yadr ann summa wax في الدسم وخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة فرب مخمصة شر من التخم mi na fexeel ba lum la ne lii laa bëgg nga càmbar ko ndax bakkan lu neex rek la lay woo baax na wala bon na nee na nag balaa nga alku mooy nga jël bakkan def ko muy soppoor mooy annasul amaara bi suu moo tax muy tàmbali fa inna amaarati bi suu nee na ba ci jëf yu baax yi sax seetlu ci cëram waaw jëf yu baax yi sax seetlu ci cëram bari na ku joxe foog ne yàllaa tax te fekk bakkan a tax mm-hmm. waaw bari na ku joxe foog ne yàllaa tax te fekk mm-hmm. bakkan a mm-hmm. jëf yu baax yi sax nee na seet ci cëru bakkan parce que jëf ju bon cëru bakkan dafa leer waaye cëru bakkan ci jëf ju baax moo jafee gis moo jafee gis waaw moo jafee gis waaw bari na fooy defee jëf ju baax nee na téye sa loxo sax boo moytul mooy gën waaye nag terewul bu mu la teree def jëf ju baax ndax seytaane mën na fa jaaree ba xañ la waaw foofu moo tax mu wax shadda saa'isa min juu'in wa min shiba fa rubba maxmasatin charrun min atuxam wastafriqi dama min aynin qad imtalaat min almaxaarimi walzam xilyata nadami waaw nee na solution daal bokk na ci solution yi gën a gaaw bokk na ca mooy ah, foo toll rek nga xalaat yàlla jooy nga xalaat li nga def sa digganteeg moom jooy ah parce que bët bu tooy ak rongañu rëccu kenn du ko lakk yowmal qiyaamati ah kenn du ko lakk yowmal qiyaamati ah kenn du ko lakk yowmal qiyaamati mu ne nag li ma lay bëgg a wax si bàyyi ci xel wa xaalifi nafsa wa cheytaana wa asihima wa inhuma maxadaaka nusxa wattahimi wala tutic minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kayda alxasmi walxakami nee na na nga wëttu tribunal bu nga xam ne tribunal bu nga xam ne mm-hmm. bakkan mooy ki la porté te juge ba seytaane la tudd mm-hmm. parce que bakkan mm-hmm. lu neex la lay woo baax na wala bon na seytaane lu bon la lay woo neex na wala naqadi na xam nga xaru neexut de waaye seytaane dina ci woo nit ah bakkan lu neex rek la lay laaj baax na wala baaxul baaxut yoonam nekku ci seytaane lu bon rek la lay laaj neex na wala naqadi na yoonam nekku ci boo amee nag tribunal boo xam ne juge ba mooy seytaane te plaignant ba mooy bakkan mm-hmm. su fekkee amuloo cour d'appel bu yonent yàlla Muhammad présider mm-hmm. mooy alku nga mooy alku nga mm-hmm. mooy alku nga wala boog nga am avocat boog bu mel ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam ah nga am ko ba mu yeggee fii nag ah mu ne bu la bakkan laay biir ba nga déglu ko bu la seytaane laay ba nga déglu ndaw nga rek dégg nga tu as tout le temps du monde devant toi bu ko nangu de mu mel ni nag moom Buusiri dafa fiil baat ne mi ngi lay wax te lim lay wax moom du noonu la mel moo tax mu ne astahfirullaha min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan li di uqumi amartuka alxayra lakin ma tamartu bihi wa ma staqamtu fama qawli laka staqimi wala tazawatu qabla almawti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi mu ne nag laaye biir gi ma lay laaye biir jël ko waaye nag bul foog ne damaa baax moo tax mu ne man de maa ngi mel ni ku amul jigéen joo xam ne dégg nga mosta mën a am doom ba pare ku mu toll naan la yow lu la teree am doom ba léegi na laqad nasabtu bihi naslan li yaqub moo tax maa ngi jégalu yàlla ci loolu maa ngi digle te man jago mi ngi bëgg a jàngale ne jàngalekat yi nañu fexe defar seen bopp buñ bëggee seen jàngale gën a am effet waaye yow miy déglu yow si jàngalekat bi même bo defarul boppam yow jëlal information ba nga jëriñoo ko mu ne maa ngi digle yiw te melu ma noonu mm. dégg maa ngi nii samay farata bu matee ca la yem mm. moo xam farataay julli la moo xam farataay kon nag maa ngi jéggalu yàlla tey ñaan mu gën maa defer bu ma deferoo ba pare mm. ma gën a mën a defere wala may soog a mën a defere mm. foofu nag ci lay defee transition pour dugg ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin Fatima di la way man ya Rasulallah oh.